mu nekkee ndaw la ko benn nijaayam violé saay-saay la ñu de loolu mujj yàq dundam ba mu dugg ci cagatu di jaay boppam ma ne nag foofoo gën a metti foof parce que tës bi nag nee jaay bi muy jaay boppam guddi gu nekk mën naa am fukki client law ma ne maanaam lii laa doon dégg maam yi wax ne njagamar bu tekki fukki caaya dootul neex a téye laa wax waaye benn guddi fukki góor waay mitti na waay ma ne nag lii mooy violence faite aux femmes dëgg-dëgg te fii la waroon tàmbalee maanaam xeex ba jële fi prostitution ndax violence physique bi ci nekk jéggi na dayoo violence psychologique bi ci nekk romb na jéggi dayoo basketteuse bi ne dund muy dund mu duggee ci cagatu maanaam jaay boppam coono dëgg-dëgg la ci jëlee ndax metti na ba fu metti romb yem nee noflaay amu ci ndax benn guddi nga am ci fukki client yu góor metti na ba fu metti yem ma ne ko nag tee nga ci génn waay ma teg ci où sont les organisations des droits des femmes ma bamtuwaat ko lii violence faite aux femmes benn gënu ko cee rëy laa wax te nag doo ci dégg benn organisation des droits des femmes coiffeuse boobu dugg ci méccam càggatu ne yenn saa yi dafay am ay client yoo xam ne dañ koy jàpp dóor ko ba yaramam bi yépp di sotti deret ci jaay googu muy jaay boppam hmm, moo tax ma bamtuwaat ko génnal ci lii ne tamit ca mbuur ay ponkali góor mës nañ ko faa séquestré hmm, waaye où sont les organisations des droits des femmes waaye ndaw si nag lii yépp ci kanamu tribunal la ko doon waxee ndax dañ ko jàpp ci wàllum sàcc téléphone doon ko juge ca tribunal bu Louga ba daan ko ñaari weeru kaso te nag ñu bii mooy huitième condamnation waaye li muy dund metti na moo tax ma ne jàngoro gi dal moo gën a graw korona laa ca yëmbal romb na doy waar ab sëriñu tariyax daal moo fa jàpp ñaari doomam yu jigéen dëkkee leen violé lu toll ci fukki at nag pour des raisons mystiques waay waay ki sëriñu tariyax bi mu ngi wuyoo ci turu Saydara moom dal nee ñu moo jàpp ñaari doomam yu yu jigéen doon sëgg ci ñoom lu toll ci fukki at waay lan moo dal suñu réew mi ba fi mu ne tey xale yi kenn ki am na lu toll ci fukki at ak juróom-benn kàcca des am lu toll ci fukki at ak juróom-ñaar sëriñu tariyax bi nag nee lu tax mu doon seeg ñaari doomam yooyu wàllum njabara ko ci dugal ngir am xaalis cay xaalis yaa xaalis waa ji nag nee ñu dafa duggoon ci benn secte nigérien secte boobu digal ko ne na violé ñaari doomam ngir am pouvoir te nag xas na ba dugg ci secte boobu su ko deful moom ci boppam mooy ñàkk bakkanam moo tax ma ne ku bàyyiwul loo gis ne ci carax nii rek gannaaw fukki at yoo xam ne nii dund na calvaire boobu ak métit boobu la benn doomam bu jigéen bi mujj dem dénoncé baayam sëriñu tariyaax bi na gannaaw ba ko doomam bu jigéen jigéen bi dénoncé way takk der yi ba ñu demee këram biñ koy teg loxo fekk nañ fa ay téere yu dul jeex ak bopp golo ci kanamu enquêteurs yi nag sëriñu tariyax bi weddi na ba tëdd ci naaj bi ne musul violé doomam ne lu mu doon ci ñaari doomam yu jigéen yooyu mooy ndox mi génnee ci kanamu jigéen te li tax mu ko doon ucc ñoom dafa bëggoon am pouvoir xaalis ay wa yaa xaalis sëriñu tariyaax bu bon boobu ne dafa signé pacte avec la diable wolof nan ko digaaleeg seytaane wala dugal ci loxoor gu bon gi nag waa ji ma dëkk ca yëmbal ca quartier ji de marine mais moom daal dafa signé pacte avec le diable ak benn secte bu nekk ca Nigéria ñu laaj ko fanweeru bopp golo ak deretu kenn koo xam ne ci famille bi la bokk walla ndox mi génnee ci kanamu jigéen te jigéen ñooñu ci ñaari ñaari doomam yi la war a nekk <laughs> ma ne waa li moom pouvoir ak xaalis jar na ko as ay dara di doomam bu jigéen bu ndaw bi nee bi mu amee juróom ñaari at la ko tàmbalee violé <laughs> waay waay kii yëpp bon a ay dara di beneen doomam bi nee paa bi daf ne ko naar fukki tiisu coton yu takk mani wu jigéen la soxla <laughs> waay ma kii moom est la ba léegi ci témoignage yi benn cousinu ñaari victime yi nee ci atum boobu mu ngi am fukki at ak ñeent la ko sëriñu tariyax bu bon boobu doon jéem a violé nijaayu xale yi di akanaag ne seen yaay dafa amoon feebaru xel naka noonu ci la ko fa jëlee dal di koy yóbbu doon ko faaj nee na ba seen yaay jógee foofu ba léegi es ay dara di sëriñu tariyax bu bon boobu ca la tàmbalee fanaanoo ñaari doomam yu jigéen yooyu ma ne xew ci réew mi kenn mënu koo wax laa la wax réew mi ma fi xew ëpp na mu doon seen xibaaru bës Buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru Buzz.